ci micro bi Ibrahima Diame ci machine bi Matar Samb wax ci jëye ji la am ci quartier Sacré-Cœur benn médecin dentiste moo daal di faat nag ñett ci ay doomam ñaari yu ñaari xale yu jigéen ak benn bu góor mu doon kon euh, mbir mu tiis ci quartier boobule mu ngi am tey ji Eh, nga xamante ni kon eh, tey dimanche eh, mu faat leen nag daal di rey boppam moom it médecin bi nag bu ñu sukkandikoo ci suñu xibaar dafa amoon problème ak jabaram ba ñu dem justice drame bi nag mu ngi am ci booru dix heures dix heures midi police daal dinay dem foofule ak sapeur pompier. daal euh, dugg ci biir néeg bi yóbbu koor yi ki nga xam ni nag moom moo di sunu reporter As Barakan daal dinay dem foofule def fa reportage. askanu Sacré Cœur mënaguñoo gëm ba léegi ni naka la baay ju doon médecin mën a jëfee jëf ju nu mel Ibrahima si di gardien di ñëwaat ci mbir mi. ay vers dix heures fam ñaam daa ñëw fi euh, di ko laaj daa dem fukk bunt bi kenn kenn wuyul après moom daa kii bunt bi daj bunt bi dugg foofu fekk leen fe fekk ñoom daa daa gaañ ci biir foofu ak ak euh, xale yi ñett xale. gannaaw bu ñu sukkandiku ci ay kàddu yu ñuy taataane ci dëkkandoo yi ñu ngi xamle ni coowul biir néeg moo sabab jëye jële waaw ñun dañ doon liggéey bàyyi environ onze heures et quelque ci lañ jékki-jékki dégg ay yuuxu quoi après ci lañ ñëw ñu dégg ni daa am benn paa bu fi gaañu ak ay ñetti doomam. waaw ñii naan dafa. xuloo jabaram xam nga moo waral mu suicidé ay doomam affaire yu noonu reyal mi ngi amee ci bërëbu liggéeyukaayu médecin bi. moom dëkkul ci dëkkul xam bu ñu sukkandikoo ci ay information gone yi seen bàyyi moo leen jox poson bu leen faat laataa mu koy jëfandikoo moom it waaye résultat yi nar tukkee ci autopsie bi dana indi ay leeral ci yan yan anam la faatu gi am. Asparakan jërëjëf.